jomde fakke ubbe hanamba ko lendi fa atta fakke lendi ref ka rawga do ke ando lay den yobon dara ko le lendi inshallah ubo bug na mafe season kan inde ma re ko mba pre ni lerke ubo ko yena to le biro men 5 minutes itun kan ko forbe nena da ambu sende ta arti talata kon jomne lendi fu talata fakka lendi fu talata acca kon naaga saxtu nee na dese moo fi am dafa am benn femme waaw bu fi sëy gaañu yal na ko yàlla xare àjjana raaw ka duy lamb ji bu tëgg suba ci dimanche bi poids léger ak li des si raaw ka du bi lundi lamb ji mar ji lay jeex joof yor daaru mag ngi yee nantim naaga waaw ci leeral rek ñu leen di wax ne lamb joof yor bi comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi noonu dafa arrêté waaw dañ ko tas dafa am benn femme bu décédé ci koñ bi ñuy ñaan yàlla xare ko ajana tey ci samedi bi nii moo nekkoon raagadu bi dix combat moo ci jot a daw léegi lamb ji du tëgg suba ci dimanche bi waroon nekk le 19 mais lamb ji du tëgg lundi lay commencé waat lundi la ñuy égal yi di des ci raagadu yi poids léger yi lundi lay doon voilà léegi lamb ji mardi lay jeex kon mbokk amateur mbër yëpp ngeen déggee ko noonu maximum de partage information bi mun a jàll yaa ngeen jëf